إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ne yii feeñ na yii feeñul mënuñu koo peeg ñi ngi koy gërëm di seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede it ne suñu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni woon ci ñun ngir mu teete ñu leeralal ñu jaamug yàlla googee yal na yàlla julli ci moom ca barkeel ko moom njabootam ak i sahaabaam ñooñu nga xam ne ñoo ko waroon jàppale ko ba diina ji yegsi ci ñun tey ji mbokk jullit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngalla way ragal leen yàlla xam leen ne teddaanga bu sax jaam bi mi ngi koy amee ci topp boroomam waaye ak toroxtaange gu sax ma nga lënkoog mooy borom bi subhanahu wa taala xam leen ni bokkaale day day mabb ak wéetal yàlla biddaa it day mabb la nga xam ne mooy sunna ñu moytu topp suñuy bànneex bi tax ba duñu am ak wéetal yàlla waaye moytu ak càggante ci topp àdduna ba fàtte tudd suñu boroom suñu boroom moo ñu indi ci kaw suuf nee na leen dong la ñu sant mooy nañ ko jaamu ci sellal jaamu googe nañ moytu lépp loo xam ne bokkaale la nañuy taxawal julli di joxe zakat nee na lii mooy diine ji wér ci mbokk jullit jullit dafa war a bàyyi xel fu mu mën a toll ci ne la nga xamee ni mooy jaamu yàlla yi nga jóg taxaw di ko def ca bi nga koy def loolee sellul loolu day moom la ñuy tudde ngissal waaye lépp loo xam ne sell na ca ca dëppawul ak sunna loolu yi dañuy tudde bidaa di ñaari mbir yoo xam ne benn baaxu ci loolu it moo tax suñu xutbab tey bi ñi ngi koy jëmale ci fàttali jullit ñi ana lan mooy li nga xam ne moo mën a yàq ay jëf ndax jaami yàlla yi kat ay catégorie lañu am na ca ñoo xam ne ba yàlla santaane dañoo lànk topp la leen neex am na ca ñoo xam ne nag ba yàlla santaane def na def nañu santaane ya waaye gannaaw ba yàq ko loolee da ngay gis kon fokk war ngaa jéem a xam ana naka lay def ba xam santaane yi jëfe ko waaye sàmm ko bu du yàqu loolu nag la la ciy dimbali mooy nga xam lan mooy lay yàq ay jëf bari na ci doomu aadama yi ñoo xam ne seeni julli dara manqué wu ci ña ngay dem ca jàkka ya ña ngay aj màkkaa ko omra dañuy génn alal zakat ña ngay dox mbokk ga amul benn bunt yiw lu dul ña nga ca waaye nag seytaan yi mi ngi leen fuglu bépp jëf boo xam ne ña nga cay jëf rek mu fexe ba dugal leen ci loo xam ne da koy yàq su ko defee lam defoon yépp daal di neen ngi mel ni rek waa joo xam ne taatu poosam ba yépp daa teppee ko xamu ci dara lu mu am rek tàbbal ca poche ba bis bu ko soxlaa day làmb ndekete lépp dem na yàlla na yàlla musul ñu ci loolu mbokk jullit loolu moo tax ba doomu aadama bu xamal ne am na ay jëf yoo xamee ni nii dafay yàq la nga xam ne mooy jëfi doomu aadama loolee bokk na ca loo xam ne da koy màbbal léppam ay day màbb cosaanu diineem màbb ngëmam ca loolee kon ab jëf moom kenn tuddatu ko am na ci nag yoo xam ne du màbb sa ngëm waaye jëf bu mu àndal dana ko màbb bokk na ci la ñuy gën a war a moytu mbokk jullit mooy la nga xam ne mooy ak kéeféer ak kéeféer ca mooy weddi yàlla ca loolu yi tamit galluwaay dañ ci war a góorgóorlu waaye njaboot gi it ñu leen di nemmeeku di nemmeeku njaboot ki di nemmeeku seen diine bala ñoo dugg ci ay mbir yoo xam ne da leen di dugal ci kéeféer mbokk ab kéeféer lépp loo xam ne defal na ko yàlla yàlla gisatu ko mi ngi noonu yàlla gisatu ko même bu doon tane ni dafay sarxe montagne or même bu doon tane ni dafay taxawu jaamu yàlla yi mbaax bu ne mu def ko waaye maadaama yéeféer la ay jëfam yépp suñu borom yàlla màbb na ko bokk na ci loolu ñuy bokkaale ak suñu borom mbokk bokkaale ak borom bi doomu aadama bi lu bari ci ay jaami yàlla da leen di dal suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax ak ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alxaasirin ay yow sama yonent wax yu naa ci yow wax yu ña la jiitu woon bis ba ma bokkaalee mboolem loo ma masoon a defal màbb naa ko ca da nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy perte mbokk yàlla buy wax benn mbir jiital ci ab yonentam loolu dañuy jàngal ak sa garaat fu mu mën a toll ci diine ngalla way foo mën a toll di fuglu baa duggoo ci loo xam ne nii ak bokkaale la noonu la ko suñu borom yàlla waxe yonente ya mbokk bokk na ci loolu nga xam ne it ak kéeféer la mooy koo xam ne ni daa judd woon ci lislaam ba pare def li ñuy tudde a ridda a ridda mooy loo xam ne nii jëf la bu ko génne ci julli bu ko génne ci diine ca bokk na la ca borom xam-xam yi di wax koo xam ne da xëy bàyyi julli bokk jullit xëy bàyyi julli waliyaas billah loolu yi dalay génn ci diine ca képp koo xam ne yaa ngeeg soxna boo xam ni du julli wala jëkkër boo xam ni du julli nga la way def ci sa kemtalaay kattan wool ndimbal koo mën a xam su fetteerloo ci loolu teqalikool ak moom li tax ma wax di démb rek la ma yàlla nattoo benn soxna boo xam ni day wax ñu laayu ko biir ndax jëkkëram da doon julli xëy xëy bàyyi julli yal na yàlla musul ñu ci loolu mbokk loolu ak lu mu mën a doon luy génn ci diini da ngay gis ne loolee day tax ba la nga doon def ci lu baax ca mbokk ga ca aj makka ya ca zikri ya ca lu mu mën a doon waaye doo julli xamal ne suñu borom yàlla nangoo tulu la sa jëf yëpp màbb na bokk na ci loolu mbokk jurit li ñuy tuddee ak takzib bil qadr mooy doomu aadama bi weddi ne yàlla rek kay dogal ca loolu mbokk bari na lool suñu waxee ni tey yàlla na la sëñ diw defal nangam yàlla na la sëñ diw aar su neexee sëñ diw kaza wa kaza mbokk loolee da ngay gis ne ki nga xam ne mooy zayd ibnu saabit radiallahu anhu mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله يرنتي بي عليه الصلاة والسلام نكو أي زيد خمالني بل يالا ما يون مونتان بوتلني أحد ci or fepp fu julit yu soxla nga def ca sa kéemtalal kattan yàlla du ci nangu benn dërëm lu dul dangaa dem ba gëm ni mboole mi dogal ci yàlla rek lay jóge ngalla waay jullit gëm leen loolu yonent yàlla muhammad ibrahim aboubacar omar kum mën a doon amul lu tol ne pepp suuf ci nguurug yàlla gi ci jaami yàlla yi yàllay dogal lu ko neex ci ay jaamam kon koy ñaan ñaanal ko ci yàlla koy xëccali xëccali ko ci yàlla koy yaakaar yaakaaral ko ci yàlla mbokk bokk na ci la nga xam ne day màbb ay jëf mooy jullit boo xamee ne nii dafa safaanoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca mooy képp koo xamee ne nii yonent bi dafa woote ci yoon yow nga indi weneen yoon woo xam ne jàpp nga ne wii kat moom it day jëme ca yàlla ca ah yàlla gërëm na ko no doon da ngay woote woo yaa ngi ci lislaam ba tey wala bokkoo ci lislaam mbokk bokk na ci loolu loo xam ne feññis ci lenn ci suñ télévision yi jamonoy tey wala sax télévision rajo dunia ci boppam mbooloo boobu ñuy tudde ahmadiya nga xam ne dañ leen faa invité plus d'une heure et quelque ñu nekk di wax seen pas-pas mbokk ahmadiya boobu ak kéeféer la anglais yi ñoo ko créé de toute pièce fële ca ca Inde ci benn as saay-saay bi ñu tuddee Ghulam Ahmad ñoom ñu tudd ñu jël tur wa dolli ca Muhammad ñu de ñu dolli ca Ahmad ñu tudde ko Ghulam Ahmad Aga Khan Ahmad boobu ñu ci dolli ñu tudde ko Ahmadiya bañ nekkee Gàmbi tasaaroo fa Yaya Jammeh li muy doy waar doy waar da leen a dàqe Gàmbi bañ leen dàqe Gàmbi ñu ñëw dugg biir Sénégal tasaaroo biir Casamance loolee mbokk foo ko déggee loolee ak kéeféer la la nga xam ne mooy ligue mondiale islamique daje nañu xam nañ ne yàlla nattoo ni lislaam bari na ay kuréel waaye kuréelu lislaam yooyu boole wuñ ci ahmadiya loolee ngeen bàyyiloo ko xel seen njaboot ga bu baax ñu am alal lañu bépp ndaw bu leen déggal daañ li yombalal ak yombal waaye mbokk bul jënd mukk sa àdduna li nga xam ne mooy sa àllaaxira mbokk kon yonent boobu la subhanahu wa taala la subhanahu wa taala wax ci ne inna lazina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaaqu rasula min ba'di ma tabayyana lahum alhuda lan yadurru llaha shay'a wa sa yuhbitu a'malahum képp koo xam ne njubug yonent bi leer na la nga lànk jaar ci beneen yoon boo ne da nga cay jëme ca yàlla mboolem loo jëf suñu borom yàlla nee na màbb naa ko loolu kon di mbir boo xam ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax ca loolu itamit moo ñu moytuloo mbokk la nga xam ne mooy bidaa bépp jaamu yàlla boo xam ni dugal nga ca bidaa mbokk loolu màbb na ca yàlla jalla wa ala ak lu mu taaru taaru ak lu mu xumb xumb ak lu mu yokk yokk yokk ci li seytaane dina xe doomu aadama yi dañuy créer benn bidaa bu ndaw mbooloo mu ndaw di ko fekki moyen yu ndaw di ko fekki bu déwee nii mu multiplier par dix gannaaw déwén par cent ñu dem ba alal ji xëpp mbooloo mi xëpp ñu jàpp ne nag ah kon lii neex na yàlla mbokk déedéet yàlla du gërëm abadan lu mu joxul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko ay sahabaam ak lu mbooloo mu bëri bëri ak lu moyen ya yokk yokk loolu istijraaj la mooy nax gu leen seytaane di dugal ci ak nax ñu bàyyi xel ci loolu bu baax mbokk bokk na ci luy màbb jëf mooy sabooti diine yàlla ci sabooti diine yàlla ci ak loo ko mën a sabootee lépp loo xam ne sax na ci sunna nga di ko saboote ci diine na doon ci julli yi la ca colin ya la ca melokaan ya la na doon sikkim ya ak muuru ya ak lu mu mën a doon loolu mbokk day génn ci diine même bu dee jàpp nga ne aanoo damay fo rek damay théâtre rek ña taxoon aaya yii may wax waat ci ba leen yàlla ba leen yonent bi laajee dañ ne ñun kat dañ doon fo rek mi ngi noonu wala in saaltahum la yaqulanna innama kunna naxuudu wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifa bi annahum kanu mujrimin mbokk naafiq yi dañu nekkoon di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal kii rek nee na nguuram gi day masa jël Faris ak Room ñi ngi nii ak sunu coono yi xoolal ñi ànd ak moom ni ñi mel ni ñi mel yàlla xamal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ leen woo wax ko ñu naa mais ñun dañ doon fa rek ak di waxtaan suñu grand place loolu moo tax yow doomu julit bi nekk ci rajo bi nekk ci télévision bi naan da ngay théâtre théâtre ba yaa ngi koy jaarale ci julli yaa ngi koy jaarale ci koor yaa ngi koy jaarale ci loo xam ne nii day suufantal mandargay lislaam mboo ko xamal ne loolu génn nga ci lislaam nga yëg ko ak nga bañ koo yëg mbokk bokk na ci luy màbb ay jëf mooy doomu aadama bi dem ba bañ lenn ci diine suñu borom subhanahu wa taala mu ne zalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbata amalahum mbokk diine ji mi ngi jóge ci alxakim suñu borom yàlla jalla wa ala alhamid ki xam ay jaamam su ko defee lépp loo xam ne yàlla da koo tëral ab jaam moom ne da koo bañ loolee mbokk da koy génn ci diine képp koo xam ne nii wóo wóor na ne ne suñu borom yàlla wax ne ay jaamam dem leen ngeen aji màkka ak la ci aju lépp doomu aadama bi di wane ne man kat la nga xam ne mooy màndarga sàngam bëgguma ko comme liy feeñ naan masalan góor guy wadd wala dem di sànni ay jamra wala képp koo xam ne muuraayu jigéen yi suñu borom wax ay yoon ci téeréem bi dem nga ba jàpp ne bañ nga loolu jàpp ne nekk fii di muuru di lëfër-lëfëri mbokk loolu ay wax la yoo xamee ne nii képp koo xam ne wax na ko wax na waxi yéeféer ca loolee da ngay gis ne bu dul ndimbalug yàlla génne na ko ca la nga xam ne mooy diine yàlla ci su ko defee looloo tax ba ab julit dafa war a bëgg diine bëgg bëgg lu diine jullit dafa war a bëgg waxtu julli juróom mu gënal ko leneen lu dul loolu bëgg ay naafila bëgg di génney sarax bëgg lépp loo xam ne xam na ne lii sunna la fu mu gis masalan jigéen di muuru xolam sedd fu mu gis ndaw lu bàyyi ay sikkimam xolam sedd fu mu gis ña nga xam ne ñooy taxawal ay jàkka ja xolam sedd ca loolu mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon na ko xeet bi nee na day képp koo xam ne bi nga xëyee wax nga raditu billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya koo xam ne da ngaa xëy ne gërëm naa yàlla di sama boroom gërëm naa diine lislaam muy sama diine gërëm naa muhammad muy yonent bi yàlla nee na boo dee ci suba googu àjjana nga jëm boo ko waxee ngoon boo dee ca ngoon googu àjjana nga jëm lu waral loolu mooy yaa ngi wane ne lépp lu jóge ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit waxumaa da koy jëfe waaye da koy bëgg da koy gërëm xam ne yàlla du ñu digal lu dul la gën ci ñun mbokk jullit bokk na ci luy màbb ay jëf mooy doomu aadama bi jaaxle dem ca gisaanekat ya dem ca seetkat ya dem ca taryaax ya ngiree ñu xamal ko la nga xam ne mooy kumpa gi nekk ci moom rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dangaa dem ci ab seetkat mu wax la dara nga gëm ko te bokk na ci loolu li ñuy tudd ay horoscope suñu borom yàlla subhanahu wa taala mabb na kooku mel noonu day weddi na la ñu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure boo demee ci seetkat mu wax la ci sa avenir nga gëm ko weddi nga alquran ndax suñu borom dane woon mooy aalimul xayb fala yuzhiru ala xaybihi ahada yàlla nee na maa xam xëybu du ma ko feeñalal kenn lu dul la ma ca neex ci sama yonent loolu kon képp koo dem mu wax la avenir weddi na ayab alxuraan boobee yonent bi alayhi salaam teg ci ne man ata arrafan fa saalahu an cheyin lam tuqbal lahu salaatan sabaina layla yonent bi alayhi salaam nee na kii dem ci ab seetkat di ko laaj ay mbir ñiin fukki fan lu julli màbb na borom xam-xam yi ne aajul nga koy weddi wala nga koy dëggal maadaama dem nga ci moom rek ñeen fukki fan loo julli màbb na loolee kon mbokk di mbir boo xam ne itamit nañ ci góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax mbokk bokk na ci luy màbb ay jëf mooy doomu aadama bi ci kanamu nit ñi mboolem li yàlla santaane matal na ko waaye bis bu demee foo xam ne kenn xamu ko fa rek mu daal di jalgati topp la nga xam ne nii mooy bànnee xam gis nañu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na xam naa lenn ci samay xeet nee na bu ñuy ñëw yawmal qiyaama ay montagne jëf la ñuy indi waaye suñu borom sant malaaka yi ñu jël lépp tasaaro ko muy poussière benn sahaaba bu fa nekkoon di sawbaan na ko ah sifhum lana ya rasulullah ay yum yàlla yu ni ñooñu may ñan mu ne mooy ñi bokk ci yéen heure bu ñu nekkee ci mbooloo mi kenn du leen jiitu ci jaamu yàlla yi waaye heure bu ñu wéetee ak la yàlla araamal loolu jigéen la loolu alal la loolu lu mën a doon bu ko defee ñu daal di koy xotti loolu moo leen yóbba loolu su ko defee ñu xam ne bokk na luy gën a suuxat ngëm yàlla di ko dëgëral mooy di jaamu yàlla jaamu yàlla gu nit ñi yëgul bokk na li gën a nekk musiba yi tamit mooy di wan nit ñi ci bitti ak mbaax ca boo wéetee wéete ak la nga xam ne mooy mooy yàlla mbokk mu bokk ci la nga xam ne nag mooy la gën a jëfee mucc ci lum mën a doon mooy la nga xam ne mooy ngistal ay yéen doomu aadama yi xamal ni ngistal googu moo jommaloon borom xam-xam yu jëkk ya moo jommaloon nit ñu baax ña lu waral loolu mooy dafa jafe yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ñu tudde shirkul xafi nee na nga gisoon xorandoom buy dox ci benn xeer bu ñuul ci lëndëm léeg-léeg mooy gën a yomb xam la nga xam ne mooy shirk mooy la nga xam ne mooy ngistal ca mooy yaa ngi jaamu yàlla jàngale xam-xam def lu baax jaamu yàlla waaye nag yaa ngi bëgg nit ñi jëla ca gërëm ak jëla ca tàgg loolee mbokk da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne suñu borom day danaan képp koo xam ne ba ngay jëf ay jëf yaa nga ciy bëgg nag ngërëmu keneen ku dul man danaa la bàyyeeg jëf joojee loolu kon lu ñuy wan mooy ngistal du la yóbbu ci kéefér waaye nag mbir moo ko boole rek màbb na aj màkk màbb na ah sarax ya màbb na lu mu mën a doon ci jaamu yàlla yi lépp loo boole ak ngistal loolee màbb na su ko defee kon ñu war a góorgóorlu gis nañu ko mel ni aboubacar yu sadiq radiallahu anhu yonent bi alayhi salaam jàngaloon na ko mu baril di ñaan allahuma inni auzu bika an ushrika bika wa ana aalam wastaghfiruka lima la aalam ay yàlla yàlla nag ma musal ma lay bokkaaleeg lenn lu ma xam ay yàlla yàlla nag ma jéggal bokkaale yi nga xam ne xamuma ko waaye loolu mooy la war a gën a moytu doomu aada war koo moytu looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala tagg ay jaamam walazina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suñu borom mu ni bokk nañ ñay yeyoo daraja yu kawe ci àjjana mooy ñi nga xam ne la ñuy def ña ngi koy def waaye di ragal seen xol yi di tiit ndax ci yàlla la ñuy dellu suñu ay Aïcha radiyallahu anha daa dina yonent yàlla bi xanaa ñii mooy naankatu sàngar yi ak sàcc si ak njaaloo yi nekk ci xeet bi di ragal loolu ñu def yonent bi alei salaam ni ko déedéet laa yaa ibnata siddiq walakinnahum lazina yasuumuuna wa yusalluuna wa yatasaddaquuna wa hum yaxaafuuna an laa yutaqabbala minhum yonent bi alei salaam ni ko déedéet mooy ñi nekk sama xeet seen julli yi mat na seen koor yi mat na seen sarax mat na waaye fu ñu toll ñi ngi ragal ndax yàlla nangul na leen am déet looloo tax ba ab julit di war a baril ñaan ñaan nga ibrahima ñaanoon ca mooy rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim ca mooy yàlla yàlla ñu nangul suñuy jëf yow yaay ki xam yow yaay kiy dégg lépp ca nga jéggal ñu yow yaay ka nga xam ne yow yaay kii sax di jéggal ay jaam lii kon mbokk dañuy gis ne benn tënk la boo xamee ni nii ab tënk la bu jullit di war a bàyyi xel suñu borom yàlla tiitloo nañu lool nee na an tahbata amalukum wa antum la tash'urun moytu leen seeni jëf di màbb ci yëgu leen ko looloo tax jullit fu mu mën a toll day nafar boppam di xool ab xolam di xool ay jëfam mbaa shirk bokku ci mbaa bidaa bokku ci mbaa topp bànneexu bakkan bokku ci mbaa li may def lépp yàlla tax mu boole ko nag encore di toroxlu di ñaan yàlla lii rek mbokk jurit mooy la nga xam ne mooy tax a mucc yal na yàlla sàmmal ñu suñuy jëf yal na ko dëppale ak ngërëmam yal na yàlla musal ñu ci lépp lu ñu yàqal ay jëf yal na ñu yàlla nangul moom mooy aji dégg mooy aji xam yal na yàlla jéggal ñu lépp loo xam ne dañ ko koy bakkaaleel ci yëguñu ko yal na yàlla may ñu aafiyee fi dunya wal axira yal na yàlla defal ñu àjjani firdaws mi suñu wàcc waay bëgg na kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim wa tub علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برح برحمتك من الراشدين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين